切，还上外，等一下。

sëñ bi joxaat nañu ndigal ñu àggalewaat waxtaan wi ñu koy dalal bu baax di ko ziar di ko wax ni fii mu ñëw ay doomam la fi fekk ay taalibeem ak ak njabootam comme ni koy waxee jamono bu nekk rek ba suñ Tuubaa defee déclaration ba waxoon ni yàlla sàmm sant bi bi mu ko daal ca la ko joxe liggéey bu téye kon loolu xam naa jëwriñ ci war wax dañ ci leeral waaye fi ñu doon waxee sànq rek mooy. xam ngeen ni kon lislaam dafa njëkk a woote ci waxtaan balaa dara di xew wax ñu ñaari kuréel yi waxtaan la